mbokk yi euh, sunu gan si na tey nag am na ñu mbégte dalal ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Dia euh, nekk le président de l'association des ouvriers euh, de la région de Thiès nekk itam président du mouvement taxawu sunu gox Thiès Abdoulaye ñu ngi lay nuyu c'est un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi. jox kenn ku nekk sa wàccuwaay di nuyu waa Sénégal yëpp di baalu ak ñëpp di baal ak dalal ak jàmm. alors association des ouvriers de la région de Thiès euh, kañ ngeen ko taxawal ak lan moo ko tax a jóg. association des ouvriers de la région de Thiès euh, projet boobu man maa ko initié woon boobu ak léegi mi ngi bëgg a def euh, trois mois. trois mois. Mhm. mu juddoo yàggut mais nag njariñam bari na te li tax association boobu juddu mooy que ni li ñu nemmeeku ñun Thiès ñëpp nemmeeku Sénégal. mooy à chaque fois dañoo seetlu ni suñu domaine national bi à chaque fois buñ koy dagg dañuy xool les services étatiques ñu jeex leen ko ñu jégal ma ci kàddu yi comme li ma ko waxoon ci point de presse bi nga xamante ne defoon nañ ko bi ñu koy lancé mooy que ni fii ngay digg ay cite millionnaire dégg ay cité douane dégg ay cité des médecins cité des magistrats mais cité des maçons da nga ko mës a dégg. cité des mécaniciens cité des mécaniciens mosoo ko dégg. Mm-hmm. et pourtant ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu doomi réew mi lañu. mais mbaam gàtt ne mais ci jur gi la bokk lan moo tax bu ñuy dagg domaine national bi à chaque fois duñ ci boole ñi nga xamante ni sii seen loxo jotul seen ginnaaw. Mm. loolu bëri benn la ñaareel ba mooy que ni boo xoolee dans le secteur de l' informel surtout ouvrier yi ñi ci gën a bëri ñoom ku ci feebar bu say mbokk taxawul dëgg-dëgg les mujj ma jàllal boo xoolee armée te ñi ci tëdd ci ñoom ñi ci gën a bëri ay góor-góor lañu yooyu yooyu yëpp boo ko dajalee ak yeneen ak yeneen boo xamante ne bu ñu ko doon wax tey du ñu fi jóg. bokk na tax ñu créé tey association des ouvriers de la région de Thiès biñ ci gën a soxal nag tey jii muy pàcc bi nga xamante ni ñu ngi ko doon wax temps yi ci ginnaaw avec l'ancien régime ak régime bu bees bi mooy que dañoo bëgg ay sites de recasement yu bees parce que boo xoolee ouvrier yu bari ñu ngi dans les xam nga fii tey jii boo génnee nga fekk atelier mécanicien bi ne fii tollier bi ne fii peintre bi ne fii. loolu baaxul baaxul baaxul baaxul day encombré day encombré quartier bi mhm. waxuma la encombré quartier bi sax mais daanaka li ñuy li ñuy dégager euh, produits chimiques yi ñuy liggéey mhm. baaxul ci alam bi mhm. baaxul tamit ci alam bi yooyu yëpp nag moo tax na ñu bëgg euh, ouvrier ñu recaser waat leen utal leen ay sites de recasement yu bees supposons ay zones industrielles yu bees yoo xamante ne ouvrier ku soxlaati ouvrier da ngay dem nga fekk leen fa tey jii loolu dana mën a permettre ñu ñu euh, encombrement ordre bu publique bi ñu wax loolu dana ko mën dana mën a saafaraw ci benn côté ci lu yaato yaato yaatoo yaatu yooyu yëpp nag buñ ñu ko xaymaa tey jii moo tax association des ouvriers de la région de Thiès jugoon temps yee ci ginnaaw defoon ay démarches waxoon ko état bi fi nekkoon ni leen nag dañoo bëggat ay sites de recasement yi bees parce que Thiès dafa màgg Thiès dafa màgg. dëkk nag bu màggee foofu il faut booy booy fi nit ñi war a liggéeyee bu ñu demee dem ba nit dëkk fa automatiquement kon nit ñi da leen déplacer déplacer atelier yi wala leen utal ay site de recasement yu bees mu indiwoon nag ay coow ci lu yaatoo yaatu mais nag yaakaar nañ ni ak état bu bees bi dinañu gëstuwaat ouvrier yi parce que kat li may faral di wax rek quatre-vingt-quinze pour cent ci population bi Sénégal yëpp ay ouvrier lañu parce que état li mu embauché bariwut secteur de l'informel mu ëpp ay nit ñu fa nekk. ah mais xoolal. loolu ban ban ban kii la ban étude la. suuf si la xoolal xoolal ma état ñaata ñaata personne la employé cent quatre vingt douze mille. cent vingt douze mille. salariés. état ci euh, fonction publique. fonction publique loolu la ci am. dama nga vérifier mais mais fon fonction publique ëpp nañ loolu trois cent et quelque la. fonction publique. waaw demal nga ko vérifier chiffre ANSD yu 2020 laa lay wax de. demal nga vérifier waat. 300 350. demal nga vérifier waat ko Google. mais boo nee 95000. ci 192000 192 000. parce que xam nga tax moo ko loolu. du ñu nekk di échappé wu si chiffre yi mais. ba ne boo nee 95 pour cent. li may wax dafa doon loo xamante ne si. cest pour cent rek ñoom ñooy ah, liggéey. li may wax man man du waxantu lu ma lu ma xam la lu ma maîtriser la. ok parce que dama koo xam. ba pare parce que laa toog mbooloo ñoo may déglu ay nit a may déglu. kon lépp lu may wax day doon loo xamante ni si lu ma xam la. nit doo tëb tëb di wax ci loo xamut. poursuivez. Mhm, allez léegi nag. Mhm. Mhm, allez bon. ok. Euh, xam nga euh, moo mu ngi mu ngi ne euh, ñi nga xamante ne dañu dëkk dañu dëkkee donc parfois nga dëkk ça ça se comprend et puis bon c'est un constat bu bu nit yi di def. que parfois da ngay gis ay quartiers yoo xam moom ay menuisier wala ay menuisier métallique affaire yooyu noonu au sein du quartier loolu ça se voit mais d'habitude loolu suy arrivé. ça veut dire que dëkkuwaay moom moo fekk moom moo fekk si ñooñu foofu euh, mais est-ce bu fekk bu fekkee dafa fekk si ñooñu foofu parce que fii politique d'urbanisation bi ak planification c'est pas tout le temps mais parfois aussi moi je connais des gens yu nga xamante ne ay menuisiers métalliques lañ affaire yooyu noonu c'est c'est comme ça dañoo demoon fenn foo xamante ne presque dix ans avant léegi am euh, ñu urbaniser fi nga xamante ne moom mooy euh, territoire bi après nit yi dëkk dëkk foofu noonu loolu ma benn est-ce que boobu noonu am nga droit wax ne da ngay génne da ngay génne nit ki bien que am na ay euh, yoon yoo xam boo fa jaaree mën nañu la délocaliser ñu yóbbu la ñu yóbbu la feneen loolu loolu c'est une loolu c'est une possibilité même pour man lu may critiquer mooy politique d'urbanisation bi fii nii ni ñu koy defee baaxul c'est-à-dire on met les les avant les les bœufs comme lu ma expliqué tout à l'heure loolu mooy un deux euh, moom association des ouvriers bu dee Thiès c'est noble ku nekk parce que euh, constitution bi moom moo permettre ku nekk def euh, li nga xamante ni moom moo di liberté de liberté de de réunion et cetera et cetera euh, mais lu ma bëgg xam moom est-ce que da ngeen a créer association pour créer association rek que kaas ne um nit yi parce que li ngay wax ni am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi lay dégg ci loolu la ñuy liggéey ay ouvrier la duñ d'accord ak yow. que da ngay nekk ci benn quartier ngay liggéey parce que ñoo li ñuy wax ñun de toute façon ñun bi ñu nekkee atelier bi yàgg ñoo fu njëkk ay kër yu yu bëri ñoo loolu moo nekk seen seen argument euh, boobu moom mooy boobu moom mooy euh, deuxièmement troisièmement moom mooy euh, ban ban ban légitimité ngeen am ban légitimité ngeen am pour wax ne yéen association ngeen da ngeen di def de telle sorte go Euh, euh, état bi délocaliser ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ouvrier di leen di leen yóbbu fenn loolu ban légitimité ban ban ban légitimité ngeen am pour pour pour def loolu. bi ci njëkk mooy ay doomi réew mi ah kon boo nekkee doomu réew mi loo neex wax loo neex nga def. loolu benn la ñaare ba mooy kat dëkk boo fa nekkee gis ne dëkk bi lii ñuy def buñ ko defee mu gaañ waa dëkk ba est-ce que waruñoo wax ak état mu waruñoo mën a déplacer. de telle sorte que ni war ñun waruñu mën a gaañ askan wi. xam nga la moo tax ma laaj la loolu. Mhm. fii Sénégal d'habitude nit yi. Mhm. dañuy jug rek créer association wala organisme affaire yooyu noonu ne état la ñu jàppale. mais état mënul jàppale ñëpp. am na ñoo xam ne yéen association ngeen mais pourquoi pas yéen su fekkee da bëgg seen situation amélioré wu que ñi nga xamante ne seen kii bi gën a formalisé wu pourquoi pas yéen ngeen cotiser wu seen biir. jéem ay site non non c'est vrai. comme yeneen nit comme yeneen assurance mais da ngay da ngay jéem a organiser. d'accord mais ma tontu difficile. Mm-hmm. xam nga lii bi ñu ko créé lee matagul 3 mois. ñetti weer la ñetti weer. mais nag bul yaakaar ni ñun dañoo toog donc di xaar état ndimbal loo gis na ci fekk loxol borom association bu ñu juddee matagul 3 mois mais nag ñu ngi organiser de telle sorte que ni état bu ñu taxawoo suupa intérêt am la ay doomu réewam la taxaw. état bu ñu taxawul suppa ñun dinañ mën a demal suñu bopp mais tooguñu di xaar état mais dañ la bëggal ñu ne lii li ñu laaj war nañ koo laaj. parce que xam nga li ñuy laaj suñu domaine national bi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk la laaj. Aïcha mën naa kii benn dernier. balaa may ñëw ci bi may laaj rek mooy parce que si sa biir wax bi ngay euh, def la la présentation de de votre association. Mm-hmm. tudd nga aussi le fait que ouvrier bu feebar. muy am jafe-jafe ba ñu koy majaal pour mën ko loolu bu bëri na ay association yoo xam ne bu ñu ko sampee dañuy duñu du ñu samp rek comme nii na nañu état ñoo jàppale mais ñoom dañuy commencer am benn organisation buy améliorer déjà seeni condition par exemple affaire euh, santé bi ngay wax noonu j'ai vu beaucoup d'associations yoo xam ne dañuy ji dañuy engagé wu ak ay assurance maladie yoo xam ne seen membre yi yëpp dañuy am benn couverture maladie par exemple je donne juste un exemple seen association bi lan yan jéego même peut-être que yàggagul mais yan vision ngeen am déjà pour améliorer yéen bokk seen condition avant que état di ñëw di leen fekk si yan genre vision wala yan amélioration euh, actuellement ni amélioration bi ñu ci amagul si cet aspect mooy que actuellement ñun ñu ngi commencé dajale ay fonds ah yéen ngi dajale ay fonds parce que it ndimbal na ca fekk loxol borom. am mm-hmm. deuxième lieu it dem nañu gis waa CMU. muy couverture maladie universelle. dem naa toog wax ak le directeur général bi nga xamante ne moo moo moo ne Thiès. Mm-hmm. ba ñuy waxtaan ci mu ni état lii la bëgg mbooloo bu dajaloo mu jéem a xool naka lay jéem a taxaw aw askan mm-hmm. kon yaakaar naa ñun tooguñu di nelaw. fonds yi ñu dajal nag yow xanaa faal nga sant. Hmm? xanaa faal nga sant. la sant caam ah, en général ñu sant Fall dañuy bëgg xaalis. moo tax ñoom fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu diggee riirum xaalis rek xam rek ba xam ndax duut na wala duutagul. non non mais lu ñu commencé gul trois mois loolu yalwaan taaliba moo fa nekk. mais li am solo rek mooy nañ ko teg naa de meilleures condition ba ñu séq association bi war cee mën a. jëriñ l'association actuellement nii def na plus de 750 membres. am ngeen 750. 750 membres ñëpp ay ouvriers la. ñëpp ay ouvriers corps de métier yi bare nga ci mécanicien yaa ngi ci menuisier métallique menuisier bois tôlier. Mhm. plombier mhm. électricien bâtiment électricien auto maçon maanaam corps de métier yëpp ngi ci. à revendication yi ngeen di def wala boog li ngeen bëgg ci ñu fekk si leen jàppale leen si da ngeen am yeneen activité yi nga xamante ni association mën na daje dajaloo def ko. si mais pour l'instant. Hmm. pour l'instant comme que day soog judd. liir buy soog a judd sax du juddu du dox da ngay judd di def état par étape ndànk-ndànk parce que lii association man maa bindoon projet bi ni kat sangam lii la ñu war def période sangam lii lañu war def mais nag jarugul ñu ko yàkkamte mais daal pour l'instant comme que dañ ko créé am benn contexte bu am élection présidentielle wàcc diggante bi ñu changé régime bu bees kon loolu dañuy mën a tey def ndànk jéem a xool ci yan yoon la ñu war a mën a jaar mm-hmm. ci yan yoon lañu war a mën a jaar ba état bi fi toog xam ni kat ouvrier lii la soxla te li ñu soxla weesuwul kat li nga xamante ni moom la ñu gis ni buñ ci état taxawoo dana mën a jëmale société bi kanam. parce que kat bu leen fàtte ni kat artisan yi ñuy wax ñu si gën a bari <coughs> xale yi nga xamante ne dañu nekk ci école yi dama dem ba. génn ci école xamatu ñu ngi def mais dañ leen yóbbu ni leen dem leen ngeen jàng métier dëgg la si si si ouvrier yi ba euh, yi nekk Thiès bokk na ci euh, mbëbët yu gën a kii mooy relance euh, chemin de fair bi mhm. ndax bëri na corps de métier yoo xam ne moom mhm. moom la mën a relancer waat mhm. bëri na ay candidats yoo xam ne aussi ci seen passage foofu noonu fësaloon nañu seen mbëbët ngir relancer ko ak yooyu est-ce que yéen vous pris la peine au moins d'écouter déglu euh, les candidats wala yéen ngeen wax leen seen bët lii ak lii ak lii la ñu soxla euh, si euh, au cas échéant ñi nga xam ne tey jii ñoom la ñu fi fal ndax jot nañu seen mbébét yooyu noonu euh, ca ba ñuy def campagne ak lan lañ leen joxoon comme hmm, réponse bi ñuy def campagne am na ñoo xamante ne dañoo ñëw sax dañoo seet si ñëw nañ ba sama kër man seet ma en tant que président mouvement taxaw suñu gox ak ak en tant que association des ouvriers mm-hmm. am na candidat yu bari si mm-hmm. li tax ñu am fitu taxaw tey ji wax mooy que nii le président de la République l'actuel président que nous saluons tous de passage bi muy taxaw bi muy ñëw cees fajar la fa ñëw 6 heures du matin mun yéen waa ceeskat boo la ñu taxawoo seen problème xam nañ ko si seen jafe-jafe mooy seen problème mburkaat bi parce que ñëpp xam nañ foofu yëfi bukki moo fa am bii bukki bii nduur bii sàmb bii xaritu bukki bii ku ndëkk teg sa loxo teg naa sama loxo mu doon loo xamante ni métti na waa Thiès yëpp ba tax na tey jii loolu it ñu ngi ko ciy xaar surtout ouvrier yi ñu ngi ko ciy xaar parce que foofu dafa am ay sites yoo xamante ni dañ faa bàyyi pour zone industrielle mais ba tey assi mënaguñu fa am accès. parce que dinaan fii nga war a dem fee nga war a dem faa nga war a dem faa nga dem et pourtant loolu waa Thiès ñoo ko maanaam laajuñu loo xamante ni si ma sàmba mu ko wala ma dem ba ko moom ñun li ñu moom la ñuy laaj suñu moomeel la ñuy laaj pour lan war koo mën a taxaw war a indiwaat benn xar kanam yu yees sur le secteur de l'artisanat parce que chemin de fer boobu ngay wax itamit ñu bari ñoom ñu ngi waxtaan ak ñun mais nag ba tey ci waxtaan dong leen toll te fi mu toll nii yaakaar naa ni Sénégal tollatuñ ci wax mais ñëw war a toll fi ci jëf. dëgg la mais bala bala di dem si euh, président même seen bi depuis deux ans muy foofu Babacar Diop. gis ngeen ko wala. kër Diop demandé nañ ko audience mais gisaguñ ko mais nag li gën a yéeme mooy du ma wax kër Diop sax mais le maire de l'ouest Thiès ouest bi nga xamante ni si parce que fa la association bu juddoo muy le maire jiite. Mhm. ci taatu mairie ba def nañ fa point de presse def nañ fa ñetti réunion mais jiite lijjantiwuñu moom nañu koy xaar ci loolu. Hmm. ñu ngi koy xaar ci loolu amul benn jéego mu def ci loolu. non non non jiite bon le problème en est que il ne respecte personne. ah yéen a fal ñoo kan. jiite faloo leen koy. Ah, waaw wu ah, mais maanaam yow tey jii jii tey jii ah, bu la neexee. tey bu la neexee politique nag xanaa non non non du question non damay laaj du question politique du question politique mais yow tey jii borom kër. Hmm. mënoon tey jii mën yow yaa yilif kër gi. nga gis say doom taxaw à chaque fois ci bunt bi di wax di wax def point de presse nit ñi ñëw mbooloo mi ñëw ñetti yoon ñeenti yoon mais en tant que borom ko yow waroo génne ni kat mbaa jàmm lu fi xew. Hmm. damay laaj waaw wala déet. déet dëgg la sama question bi am na sax. da ngay politique oui ou rek ma ma yeggali li ma li tax ma laaj la. damay da ngay politique. damay politique waaw a ah, d'accord léegi politique bi ngay def. Mhm. est-ce que yaakaaroo. Mhm. mu am njeexital. Mhm. si doxalin bi nga war a doxal. association bi ndax da war am benn posture boo xam ne ngay tëddee njaaxanaay. foofu nag foofu nag ñu bari waxuma la yow sax mais ñu bari ñu ngi def foofu erreur. erreur mu man damay laaj xam nga tax lool ma à chaque fois casquette yi bokkut. am na casquette boo xam boo ko solee. dafa am loo war a wax am na am lu war doxee am na casquette boo xam boo ko solee am lu war doxee. non. ci yow mënul ne xam nga tax vas-y nga tax parce que li ngay wax maanaam da nga ko maîtriser wut xamul sama jëmm moo tax. merci beaucoup. <laughs> voilà sama jëmm moo tax maîtriser woo jëmm ji moo tax. mais jëmm ji à chaque fois tey jii bu ma génn am na foo xam ne su ma jógee fii boo fekkee da nga naan noonu xanaa ne kii moo ñëw plateau. am na foo fii ak ginnaaw fii ak trois jours am na foo xam boo fekkee dama ne kan xanaa kii laa gisoon bërëb sàngam. parce que dafa bëri casquette. Ah, parce que dama bëri dafa bëri ay casquettes yoo xamante ni nit koy jox li mu yellool ak li mu moom. je rappelle que aussi dafi toogee comme président. Ah, mouvement taxaw sunu gox. mouvement boobu mouvement politique la dafay rejoindre un peu Kajoor lu muy wax léegi. mouvement boobu it kazaalika mouvement politique la mais de quelle manière la ñuy politiquer yi. loolu looloo jaaxal mu moom loolu moo jaaxal waa Thiès ñu bari. politique boobu li ñu ciy def li ci ëpp mooy politique sociale lañ ci def politique développement comme li mujj ci Korité bi rek as mouvement taxaw suñu gox daanaka jëndal tolloog une tonne de une tonne une séddale ko ñi nga xamante ni seen loxo du seen ginnaaw ouverture yi passé plus de 1000 élèves mel na leen ay fournitures scolaires am jëlee xaalis bi. les moyens cotisation. moyens yooyu nag ba tey mooy jaaxal ñu bari mais moyens ñu ñoo koy ko di suñu biir. mouvement bi. mouvement moo ko des ci biiram. mouvement bi kon moo njëkk juddu association bi. mouvement bi ci biir mouvement bi ci la association bi juddoo. kon mouvement beeg association bi yëpp 3 mois la duré. non mouvement bi def na plus de 2 ans. ah ok te en plus fii balaa yàgg dara di ngeen gisaat beneen beneen projet boo xamante ni si dinañ ko créer su le mm-hmm. développement parce que xam nga tax. Mm-hmm. ñun dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo ne ci penc mi. Mm-hmm. ngir lu jëmale penc mi kanam mais ñëwuñu pour bëgg a déqi waa penc mi loolu lañu bëgg ñun mu jeex. moo tax à chaque fois ñu am benn taxawaay Thiès. d'accord. Pam, on termine rapidement euh, waaw dernière bon dernière question bi moom mooy. Euh, sànq laaj naa la Babacar Diop mais nga ne xaw maire bi jiite moom. non Babacar Babacar war nañoo gisante ak moom. waaw mais Babacar mais jiite bi moom amul ay moyens Babacar moom mooy maire bi donc euh, voilà moyens foofu la war a jugee pour mu jàppale. même lu kan kan amul moyen. ba jiite. maire ouest. waaw. maire ouest Thiès ouest. waaw demal nga xool renseignement yi. budget bi ñaata la. bokk na ci juróomi maire yi ëpp. mais budget bi ñaata la. budget bi bu daaw bi. yéen xanaa soo leen seen budget bi daaw bi mi ngi toll presque su ma juumul un milliard quatre cent. un milliard quatre cent. Mhm. ok mais un milliard quatre ci euh, euh, comment commune bu nga xamante ne lu toll ci trois mille habitants la euh, wala quatre mille loolu tamit c'est c'est peu e sax. mais dañoo gisul maanaam lu concret loo xamante ne maanaam. maire def mais sama question xam nga xam nga. papa termine euh, merci waaw d'accord Aïcha. Aïcha euh, lu ma déranger un peu rek moom mooy bon mouvement bu nga jiite plus euh, association et puis xamoon naa suñu laaj da nga may casquette yi bii fii ak fii lu ma fiy def lu ma fi def bokk mais de toute façon d'habitude ni muy demee mooy benn nit lay doon créer benn mouvement politique après bëgg a xëj am sympathie ñeneen yi fu muy liggéeyee. bëgg leen si xëcc d'habitude c'est c'est comme ça bon li ma wax na ça peut ça peut être mais question bi moom mooy est-ce que yéen profité woo leen ci ñu nga xamante ni ñooy autorités yu bees yi nga xamante ni ñoom dañu leen jeunes di jox emploi euh, ñi nga xamante ne ndaw yi buñ demati fenn ñu toog fii euh, am na ay projets yoo xamante ne ñu koy tijji yéen ngeen bëgg a surfer si vague boobu noonu pour engouffrer wu foofu est-ce que nekkul yow yow lii ngay wax dóorkat yi ngay wëri da ngay dem nga laaj ko dóorkat yi man du ma dóorkat <laughs> li ngay wax nii sa question bi da ngay xool dóorkat yi nga dem wax leen ko ñu bu nekkoon contexte boobu rek dañu toog fii kon liggéeyante nañ suñu bopp ba dem suñu bopp bu yàgg. parce que autorités yi ba recevoir nañu proposition bi gis naa ko. lors des élections muy dox yi. lors des élections locales les lors des élections législatives gis naa proposition bu ne li nga wax nii maanaam yow yaay énième personne moo ko proposé dama nga taxaw Cees nga laaj. d'accord nguur gu nekk am na ay dóorkatam nag de. waaw mais kooku da koy wax dóorkat yi xam nga lu tax <laughs> dóorkat yooyu dañu amul métier am ay métier. merci beaucoup léegi ne lii su ma paree fi waxee yow maa ngi am bagage yu mu war dem jëli ci crédit foncier wala ñu boîtier damay liggéey man dama am liggéey dama am métier ñun du ñu ay toog muy toog ko moom da nga koy wax koo xamante ne maanaam amul métier ñu ngi am nga euh, am na si ay points yu nga xamante ne partagé naa ko ak yow comme euh, domaine national bi euh, ni ngay déggee ay cité des magistrats cité des nii cité des naa Euh, ci même longueur d'onde bi nga war déggee cité des menuisiers des mécaniciens euh, des maçons xaaral ma wax la parce que ñoom itam ci réew mi lañ bokk. Ah, pourquoi ah. cité yi moom ñu ne ci kaw rek. nga koy hmm? nekk su cotisé 10 000 xanaa da ngeen toll 7 10 xanaa 7 millions la. après nga dem association la soo demee banque dinañ la lebal 20 millions. nga mën a 27 hmm, wala 30 millions. mais ah, mais faut pas attendre tout l' état que l' di jox. Pape ndimbal da fekk loxo borom mais war nañ leen jàppale di xaar état mais xam nga li ñuy laaj ñun ñoo ko moom mooy lan domaine national pa foog nga dégg fi aaya fi ñuy waxee. Mm. la demuñu demuñu fekk suufu jàmbur yoo xamante nañ koy laaj de. seen moomeel sunu moomeel ñun la ñuy laaj. ñun waa Thiès sunu mm. domaine national la ñuy laaj loo xamante ni si dañ koo dañ dañoo ne déclassé nañu forêt sangam. Mm-hmm. tant d'hectares la. Mm-hmm. fii zone cala kii la euh, cinq am ngeen fi tollo temps d'hectares pour ouvrier ñu war ko mën def ay sites de yu bees sites de recasement yoo xam nga pour la. pour créer ay ateliers yu bees ñun loolu la ñuy laaj buñ ko joxee ñun su boobaa dañuy génne suñuy fonds yi bopp tabaxal ko suñu boppam. présidentiel ko war sax ñu jàppale leen. présidentiel ko doon ki ñu jàppale man ki ma jàppale yow ki nga jàppale ki kiy jàppale amatul sens xam nga li am sens mooy. Eh, ki yàlla suñu borom toog teg fii. yaa ngi laaxatu moom mbalak. merci jaajëfal nañ la bu baax a baax Abdoulaye ñu bàyyi la nga tàggatoo ak. Ah, xanaa rek di di leen santaat rek bu baax di leen gërëm rek xam ni Pape moom ku doy waar la mais daal li am solo rek. a bokk Thiès gi de. yéen a bokk Thiès ah, mm. nitu ci Thiès. foo dëkk Thiès Pape. daal li am solo rek mooy euh, nguur gu bees gi fi toog. Euh. Euh, ñu bàyyiwaat xel ni ndaw ñi ñoo ëpp ci réew mi. loolu am na. kon nag li leen di gënal bàyyi xel mooy que le président diggé woon rek bi mu ñëwee Thiès xam ni kat waa Thiès tàllal nañ ko lox parce que ku gis résultat yi am Thiès. xam ni waa Thiès bokk nañ ci ñi ko fal ci li ëpp doole aussi bëri na ay autorités yu nga xamante ni jox nañ la ay nombal tànk ah. te foofu la ñu foofu la ñu bàyyee ko fa la ñu soxee ko ah, donc yéen waroo leen am benn problème loolu a wax waroo leen am benn problème parce que Thiès ñi fa dafay xamal tax mm, mm. ñun opté pour tàllal loxo di sàmbay mayaan mm. ñun dafa am lu ñu gëm ñun ouvrier yi ñun ndaw ñi dafa am lu ñu gëm ñun xam lu ñu gëm mooy ñàkk jariñu mais dafa am loo xamante ni mooy le minimum mooy que ni ñu reconnaître ñu li ñuy reconnaître mooy que ni suñu domaine national la ñuy laaj ñun ñu liggéeyal ko suñu bopp jërëjëf tàllaluñu loxo Pape encore une fois jërëjëf d'accord reconnaître leen jox leen seen gëdd ah xam seen valeur teg leen seen place man ànd naa ci loolu parce que lu baax ci réew mi lu ne yéen yéen a koy liggéey yéen ouvrier yi jaajëfal nañ leen bu baax a baax et puis ñu am yaakaar ni que li ngeen bëgg euh, ci li nga xamante ni moo di seen association wala seen mouvement bi mm-hmm. euh, autorité yi ñëw taxaw si daal di leen jàppale bu baax a baax merci beaucoup demee nuyu ñu waa Thiès danañ ko euh, dikkaat bu ko defee ñu dalal Keyna daal di continuer sunu aventure ak moom naa la xanaa nga war ma gëm sama làmp ci lëndëm saa yu guddi yaa leer